glace. wala café. wala ngeen laal. Euh, Nescafé. Nescafé. buvez un peu de Nescafé. wala ah. café au lait. <laughs> non Nescafé <laughs> baax na lait bi day kii day indi. ventre qui court quoi léegi nag oustaz defe naa jot na pour ñu dem ci question yi parce que sànq ba tey sunu xarit yaa ngi ñuy yónnee euh, ay question ci compte yi nga xamante ne am nañu ko euh, ci réseaux euh, sociaux yi profito rek ndokkeel bàjjan maam Benda moom itam day bég toujours ci midi plus vendredi bi ndokkeel itam ki nga xamee ni mooy madame Dieng madame Dieng Koumba Ndiaye depuis Kébémer ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel ak jabootam di nuyu tamit yaayu Mouhamed kookooy madame Madame Diop Ami Diallo moom suma yaay la ca Thiès euh, kër Bouba Jaxaw euh, mu ngi souhaiter un bon anniversaire sama chéri sama maam na euh, Kiné Diouf ma ca Jaxaw suuf c'est de la part de toute la famille bu Alaaji ma Diouf aju buya ak tout la famille ñëpp a ngi koy ndokkeel di ko ziar li ci topp nag mooy question yi defe naa première question bi yaaw saas dañu koy teg bu ko defee ma liiral la ko nafaral la ko xam nga bu dee arabe bi moom yaa ma ciy gindi mais bu dee français bi maa la ci ëpp xam-xam. mais pas pourtant jaar naa ci français bi de. mais yow classe gor ñi nga bàyyee <laughs> est-ce que dem nga ba CM2 sax leer na ma ni sa yi nga yem. damaa jàngoon ay verbe être ay verbe conju conjugaison verbe conjugaison. <laughs> verbe conjugaison. verbe radical. radical de amul verbe. <laughs> fi mu ne yaay radical dañ daan toog ci classe ba mu yàgg alaaji Pape. Uh-huh. ma ni monsieur yëkkati sama loxo mu ne ma waaw Modou. Uh-huh. ma ni ko euh, damaa bëgg a tifli crache nu ñu koy waxee. crache tu l'as dit. crache waaw cracher tu veux cracher. damaa bëgg ka cracher. cracher waaw. Euh, <laughs> ku dégg ni muy waxee monsieur rek nga xam ne ñu laar la ñu laar dëgg sama classe gi monsieur la ñuy wax. monsieur ak madame madame madame je vous demande la permission pour vomir. mooy damaa bëgg a génn pour wàcc. waaw loolu tax ñu wàcc yow tamit xanaa da ngaa sibiru ci classe bi <laughs> kon yow nii nga yàgg a mel. je te demande la permission pour crash damaa bëgg a tifli je te demande la permission pour vomir damaa bëgg a wàcc. loolu de xam naa yàggul xam nga Sénégal xamuñu ni xale bu ndaw nga. <laughs> sa primaire moom xam naa ni sànq la. bi mu jàngee ni ma déggee woon français ëpp na ci yeneen. doxaat ci xale yi di dem ay sorti fekk moom mi ngi primaire booy la boo xamante ni mais élève bu terrible. amoon nga livre boobu amoon Ansu. Euh, Sidi Sidi Rama Sidi Rama amoon Abdou. Mhm. Mhm. tata tata Nafi. tata Nafi waaw tata Rose. tonton <laughs> tonton xaw ma tonton lan tonton Simon. <laughs> buñ ko daan wayante ci classe bi Ansu et Abdou. <laughs> yow de bu yàggee nga ñun ci xolu maarloo maay ki koy yëngal <laughs> wala kulu kenke bu dara toq. maarloo dey maarloo dey xolam de bay def fan yi bee raw Nescafé de. maarloo xolu ndox mu maar maay ki koy yëngal. maarloo sa sa xol bee raw Nescafé de. oustaz mu ngi may wax ni bu ñu continuer ambiance bi euh, tem ñuy raté xutba bi donc euh, balaa question bi très rapidement Vieux nga may ma rek ma nuyuwaat suñu beneen soppe euh, bébé Daouda Ndoye bébé Daouda Ndoye nag tey la anniversaire am joyeux anniversaire donc à bébé Daouda Ndoye c'est de la part de sa maman Altine Sow di ndokkeel itam docteur Massamba Gueye di ko bu baax. Euh, di ko euh, bégee fu ñu mënti tollu euh, di nuyu tamit awa sama awa awa Kulibali awa Tagali kooku nag sama bos la sama séddoo la sama jabar la sama xarit la ñu ngi koy ziar bu baax moom awa Tagali allez une question tout de suite oustaz ki mu ngi laaj naan pour a-t-on fait pourquoi a t fait ah man français bi xaw ma ko pourquoi a-t-on fait quitter ah d'accord pourquoi a-t-on fait quitter la Mecque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa lan moo tax ñu jëlee ko ñu jëlee ko Makka xam naa gàddaay bi la bëgg euh, nga expliquer ko lan moo tax mu gàddaay euh, jógee Makka bi nga xamee ni mooy dëkkam dem sanc Médine. jërëjëf alaaji Pape. Euh, bala indi indi indi café gi may naan di wax amul problème. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. Makka la juddoo. Mhm. waaye ba mu demee ba yëg ni xajatul ci dëkk bi ndax ay pexe yu ñu koy lalal mm-hmm. waa Màkka dañoo xëy xëy rek dajaloo mm-hmm. ne dañuy waxtaane ngir génnee ko Màkka mm-hmm. bi nu dajaloo ñoom waa Màkkatal Mukarram alaaji Paap saay saay yu Màkka sépp daje wa yamkuruuna ixtiraaran zaaka da bu humu wa yamkurullahu itmaaman li mi alaaji Pape keroog lanu nu waxtaane ne dañuy génne Seyduna Muhammad Makka mhm. keroog bi nu koy génne Makka moom yonent bi daf ni yéen nag may génnee dëkk bi ma gën a bëgg alaaji Pape moo tax keroog dogguma la sachant que seetkat bi nu mu tuddati waraxata waraxata gis na ko keroog bi Seydatuna Xadija demee seeti ko pour mu seetal ko mu annoncé ko ko waa kay ñii nga jàkkaar lool Pape ñu yor tabala yi ak bool yi di fëgg mm. ñii ñooy waa Madinatul Munawwara keroog la nu génnee Seyduna Muhammad Makka mm. gaa ñi ba ñuy réunion ne ña ngay lal ay pexe pour attaquer ko biir këram. keroog la yàlla yónni. jibril pexe yàgg na ci àddina. alaaji paap mm. li lay wan ni ku yàlla téye doo daanu. Mm, mm. yonent bi daa tëdd ca kaw lalam. ñu fekk ko fa ni ko sa borom nee na. laa tastabit ala firashika mm-hmm. wal aadaau fil himami. Mm-hmm. yow yonent bi jugal bul fanaan ci kaw lal bi. Mm-hmm. waa Makka ngi defi pexe pour rey la mu ne fu ma jëm ñu ne ko génnal Makka dem Madinatul Munawwara ay pexe ko génnee Makka alaaji Paap keroog bi mu génnee moom Seydina Muhammad jëm Madinatul Munawwara waa Madina teeru nañ ko ñetti fan gisuñu ko duñu ko di ko xaar dañuy yëg ci garabi tàndarma yi gis nga Pape ñii taxaw ñi ngi séentu yonent bi gis nga leen niñ taxawee mhm. film bi la ñuy jéewaat mhm, Seydina Muhammad agsi ci giléem gi mhm. gis nga giléem gaa ngi dugg si njool màkkaa ngi dugg si agsi na Madinatul Munawwara da koy teg léegi gis nga alaaji Paap barrière ooram bi gis nga Paap liggéey bi fi mu tàmbalee jàkka jàngoog alaaji Paap fii mooy madinatul munawwara gis nga niñ ko tàmbalee mm-hmm. boo jullee ci jàkkaam ji mm-hmm. yëg ni julli nga ci jàkk joo mësta jullee alaaji pam mm-hmm. ñi fa demagul yàlla nañ fa dem amiin boo toogee ci raw doom bi ba ñu ni julli jot na ba ñu liqaamal la nga jàkkaarlook raw doom ba xam ne la mu ne woon fi ma tëdd ca aljana la bokk dëgg la alaaji pap sayyidina muhammad a ngoo ñee ko bëggoon jox ko seen lépp alaaji pap ñee jëloon seen alal jaay ko ngir sayyidina muhammad ñee miiraasoon seen bopp jox ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ñii ñoo jëloon seen i coono di ko participer ngir yonent bi alayhi salaatu wa salaam. jàkkaam jaa ngi nii. Mhm. boo fi duggee nee na boo toogee yëgal ni àjjana nga toog. Mhm. ndax moo ni woon maa bay na bayti wa minbari rawdatun min riyaadil janna alaaji Pape Seydina a Ngoog yal na nu ko yàlla dollee soppaloo. kon la ko jële Makka indi ko ma Madina. Mhm. mooy ay xat-xat yu metti yàlla ni ko ni ma moomee Makka noonu laa moomee Madina kon génnal Makka nga dem Madinatul Munawwara yow yonent bi. macha allah mu ngoog donc loolu mooy tontu bi ci téléspectateur bi nga xamante ni laajte na euh, lan moo waral gàddaay bi euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee euh, dëkk bu ñu naan Makka dem sanc dëkk bu ñu naan Médine jaar-jaar boobu nag dafa similaire ak jaar-jaar jaar-jaaru baay ñas loolu xam naa dinaa ko sàkkal bis pour waxtaanee mag ñi ci jotaay bile laaj bi ci topp ñu jébbalaat ko ñu jébbal ko Oustaz Modou Fall El Hadj Diouf ci sa ndimbal yow ak ñoom madame gisee ak toog mu Serigne Fallou. Euh, Adja Gueye moo nekk ci euh, digital bi Nami sama doom moo nekk ci euh, mise en beauté voilà kii mu ngi laaj naan mon mari m'avait offert une voiture mais après son décès on m'a fait savoir que la voiture fait partie de l'héritage de mon défunt mari nee na borom këram da ko mayoon oto waaye bi borom kër gi faatoo dañu ko xamal ni oto bi ci miraas bi lay bokk mais Pape oto bi mënta bokk ci miiras mi. may nañ ko ko ba pare. li ñu la may kay bokkul ci miiras mi. jabar kay loo ko xas ba may ba pare moo ko. mais xam nga problème yooyu Pape dafa commencé di am. dafa bëri de. yenn saa yi bi ngay dund ak sa borom kër. Mhm. mu may la kër walla mu may la terrain. Mhm. wala mu may la oto. Mhm. te déclaré ni may naa sama soxna si objet bii. may dañ koy déclaré. mu génn àddina. mbokk gi jàpp ni oto bii ci oto yi jëkkër ji la bokk wala terrain bii ci téerewu jëkkër ji la bokk wala kër gi ci këru jëkkër ji la bokk ñu bëgg ko boole ci miiras mi te kii ba muy dund mayoon na ko soxna te lu nu xasa maye dootul bokk ci miiras lu dul ni bi ko waa di mayee mi ngi ci diggante dund ak dee foofu moom boo mayee duñ ko duñ ko accepté mhm. su fekkee li ngay mayee ndono la te bi nga koy mayee yaa ngi ci diggante dund ak dee soo ko mayee kenn du ko validé. ba pare maye nangu baaxul kon si ay day am doomu jaat <laughs> xanaa loolu neex na may nga ko sa jabar mu jural la doom séyal la moo ko moom normal. ok nañu ko bàyyeek oto boobu xam ni moo ko moom. Mhm. mais bu doon bi mu ko koy may dafa nekk ci diggante dund ak dee xam nga ki nekk réanimation. ñu naan dina jug ak du jug. ba médecin yi amatuñu ci yaakaar nga ñëw seet si ko ci feebaram déey ko ni ko sa téere bi nekk almadi may ma ko mu ne la may naa ko wala sa téere bi nekk yoof may ma ko mu mm. ngi ci feebar nekk réanimation ni la may naa la ko mm. loolu bu nu ko càmbaree maye gi du valable ci l'islam mm. loolu arnaque parce que circonstance yim la mayee moo daganul mais bu fekkee nag ba muy wér la la ko may nga miite ko ci sa tur oto bi nekk ci sa tur ñu xam ni moo la ko may loola bokkul ci héritage bi dañu am problème mu miiras. Mhm. ñu ci bari miirasatuñ mais dañuy séddale. ñu def ci émission spéciale dañ ciy def spécial émission ay jafe-jafe yu bari mu ngi yàq ay diggante mu ngi yàq ay famille dañuy miiras. jeeg ji sëy ci biir kër yi bu seen borom kër yi deewee ñu deseeg seen i doomi borom kër mbokk ya indi ay giita ngaas yoo xam ne. mu indi ay problème foo koy nettali mu indi ay problème wallaahi wallaahi. yenn saa yi nga bàyyi fi alal am ay doom. Mm. say sœur ak say frère bëgg cee kaccet doom yi te doom yi ñoo ëpp yell ci alal ci waaw ki bàyyi ay doomam moo gën a ay doomam ñoo gën a yelle ci alalam ka mhm. ay sëram ak ay frère am mhm. même ñu buñ dee am ci miiras mi alaaji Pape loolu dañ koy wutal bis bi gën a metti mooy danaa la wax ki fi bàyyi alal mhm. jabar yi ku ci ne ñaata ngay am doom yi ku ci ne ñaata ngay am mooy sumul su fi bàyyiwul doom <laughs> am na ñoo xam sumul rek nga la ñu mérité sumul mooy bi gën a ndaw am na ci jeeg joo xamante ni <laughs> sumul rek laa leen yéene buñ ci ab dara lu dul sumul. sumul sumul du mooy bu gën a ndaw. léegi Pape su ma ñëwaatee dinañ ko <laughs> dinañ ko wutal bis. Ah. ma wax la ku ne li mu war a am ci miiras mi. incha allah bu fekkee bàyyiwu fi doom. alal jim fi bàyyi nan lañ koy def. Mhm. su fekkee ci biir doomam yi daf ci am doom yoo xam ni judduwuñu ci buumu sëy. lan lañ ci am ak lan lañ ci amul ak est-ce que dinañ am wala duñu am ak ñaata doom lañ fi bàyyi loolu lépp ci miiras la tënku danaa ko wutal thème insha allahu taala su ko defee ñu waxtaan ci alaaji Pap insha allah donc defe loolu leer na ci question donc oto bi euh, yow yaa ko moom waaw bokkul ci euh, bokkul ci miiras bi sa borom kër kër may na la ko may na la ko bi muy dund waala ñu jël euh, beneen question rapidement en attendant Seyda Fat Bintou Diop ak euh, Oustaz Assane ñoom ñu ngi wàcc itam ñëw accompagner leen ci télévision Futur Média Oustaz quelles sont les conditions à remplir pour être imam à la mosquée euh, naka la nit di nekk imam. jërëjëf Alaaji Pape ni ñuy tànnee imam. Mhm. ba tey moo valable ci ni ñuy tànnee sëriñ. Mhm. dañuy wax ni sëriñ boo koy tàmm boo koy tànn. da ngay tànn koo xam ni basirun bi ahkaami shariati maanaam koo xam ni dafa maîtriser sharia mhm. imam bi ñuy tànn ci jàkka ji mu war a nekk imam biy jiite nit ñi mhm. war na maîtriser fiq mhm. war na maîtriser sharia mooy war na xam at attey laab xam attey njàpp xam attey tiim xam attey julli bu yokkee ci julli gi nan la koy defaree imaam daf ko war a xam mm. su wàññee ci julli gi nan la koy xamee nan la koy defaree da ko war a xam mm-hmm. xàmmee xabla salaam xàmmee baada salaam mm. mën a takk sëy mën a daganal diggante mm-hmm. mën a jullee néew bi faatu nga war koo jébbal boroomam liir bi doog a juddu nga mën koo tudd mën a miiraas mën a jàngale sharia xàmmee sharia kon ku ku du ku jëkk rek ku tëb rek nekk imaam déedéet alaaji Pape dafa may àtte mm. da nekk ko jub ba pare nekk ku maandu parce que njiit dafay maandu boo demee ci juróom-ñaari nit ñi yàlla wax ni ëllëg àjjana lañ jëm yonent bi daf ci boole na aadilun mooy njiit lu maandu. koo xam ne da ngaa jiite ba pare maandu. dëddu àdduna dëddu àdduna. parce que loolu kenn du la korom am na am na euh, soxna su mu xawoon jaaxal nee na seen imaamu koñ fajar gi dafay accolade jeeg yëpp doog a dem jiite am na ku ko laajoon ci carte générale bi loolu pap xam nga daganul bokkul ci critères yi waaw maanaam mm-hmm. soxna jàmbur amoo mm-hmm. droit accolade ko mm-hmm. amoo droit jox ko loxo góor warta nuyu ku dul soxna moo tax ci dëkku ci dëkk yu réglé yu bëri dëkku naar yi surtout euh, yëfi imaama dañu ko defal ministère mais pap defal ko ay formation da ngay am formation da ngay dem ci dëkk fekk fa imam mu mel ni ministre mais Pape dañuy am salaire. am salaire am logement de fonction. am parce que imam moo rëy. am garde corps. am lépp. Mhm. am sa dara du tardé. Mhm. ba pare dañ lay defal stage. waaye mel ni sama papa retraité rek woote imam man damaa jaaxle sax mooy imaamu koñ ba de ci ancien alkaati <laughs> parce que loolu am Sénégal paa yi dañuy retraité commencé bi jaaw ne ay imaam lañu. mais ñëw di xëccoo jàkka ji ak. njëkk donc da nga war a respecter critères yi. ak njëkk noddu. c'est pas normal. am na benn noddukat boo xam ne Pape gis nga li ko dal bu yàggul. Mm. micro bi tàkk na te yëgul ni tàkk na. muy jëw beneen paa bi waroon na njëkk a nodd. deful loolu. ñi ci koñ bi ñëpp a ngi dégg haut-parleur yi. naan Paa Diop day soof sooflu rek. di njëkkante nodd waaye dina xam ne jàkka ji sama loxo lan ko teg te taal na ko bu yàgg kat. non ñii añ ñëpp a ngi dégg li muy wax. allahu akbar. <laughs> cat la accident de travail la mais critères yi bëri na boo ko matalewul. mënoo nekk imam du tout. balaa ngaa jiite danga koy jàng. Mhm. balaa ngaa noddu danga koy jàng. Mhm. noddu dañ koy jàng alaaji pap mhm. bari na noddu yooyu dégg ci Sénégal gii bu ñu la ko firiloon nga fat nga fat nga fat say nopp. xam nga asadu an laa ilaaha illallaah xam nga lu muy firi. mooy maa ngi seede ni gaynde kenn la. waaw ah, xam naa ko mënul prononcer la rek. mais Pape am na ñoo xam ne dañ koo jàngul. ni ñu ko déggee noonu lañ koy mokkalee rek dem di ko waxee noonu. asadu an laa ilaha illallah mooy maa ngi seede ni gaynde kenn la te baat bi pour mu wér danga naan ashhadu ashhadu an laa ilaha illallah mais asadu rek am ñoo xam ne mënuñoo nodd am ñoo xam ne mënuñoo liqaam te booy liqaam li ngay wax ci nodd bokkul ak li ngay wax ci liqaam booy liqaam booy nodd da nga naan allahu akbar allahu akbar bar soo dee liqaam danga nga naan allahu akbaru allahu akbaru bokkul mais je savais pas moi xamuñu ko dëgg la de Oustaz sooy nodd da nga naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar boo dee liqaam ngay wax allahu akbaru boo dee liqaam da koy boole baru ah. baru ca mooy différence bi en fait bar. bar ak baru. ak baru ak allahu akbar. Hmm. ak akbar yaa ngi nodd. Hmm. ñu ne la li qaamal nga ni allahu akbaru allahu akbaru. ashhadu an laa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah différence bi mooy baru ak bar. ok nga xàmmee ko. donc loolu c'est à écouter parce que ñun man neexaay bilay laay déglu. Euh, ni ñuy mbaaree ni ñuy mbëfëree ni ñuy njollee sama papa moom xam naa ni bëgg naa ko dugal studio ndax ni muy noddee fajar gi moom loolu rek a ma neex ci ay yëfam mais nag moom du ñu juboo noddam rek a ma neex moo tax nodd nag pap dafa war a neex nodd na ba ma ko ne yow dama lay yóbbu Prince Art seen petit gàlle moom ala kulli àll di nga bokk ci émission bi <laughs> wàññi say at nodd nag dafa war a neex aussi nodd dafa war a neex parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo gisee mu tànnoon bilaal mhm. def ko muy noddu katam. Mhm. alaaji Pape Bilal dafa neexoon baat. Mhm. te yonent bi bi mu demee àjjana di ko visité. bi mu ñibbisee bi ñu ko laajee loo fa gis. daf ni dégg naa baatu bilaal biir àjjana muy noddu. macha kon kooku àjjanaam leer na te deewagul wallaahi kon noddu nit mën na ci amee ay garaat. yu kawe kawe kawe. moo tax dañuy tànn ñi koy def. baat yi dafay wér. ashhadu pas asadu. asalaatu xayrun min an nawm donc du n'importe kii mooy nekk bilaal wala imam du ko jug noddu mhm. du ko jug jiite très bien loolu xam ni ngay jullee néew mhm. xam ni ngay tuddee doom mhm. bu ñu waree génnee azaka ñëw laaj la ko nga xam attey azaka xam règle yëpp mën a tudd doom imaam Khalifa Niang yàlla na yàlla xamee sharia bañ ko la ger di àtte dëgg bañ a xool ci ki lay jox xaalis ak ki la joxul xaalis ki xottil mbasin ak ki ko xottilul imam dafay tëddee njaaxaanaay di atte dëgg di atte sharia mhm. loolu mooy rôlu imam mhm. sunu imam yii nag comme amuñu salaire kuy julli si ci jàkka ji te sa sa sa loxo jot sa gannaaw parce mhm. que koñ boo dëkk am na ku fa tane kuy julli si ci jàkka ji ko nay gestu imam war nañu leen daggal salaire nag dee leen jëndal imam yi ay saaku ceeb di ko yóbbu ci seen kër yi di leen jëndal suukar di leen jox xaalis parce li nu yor ñoo ko yor te góor ga daf ni woon mhm. góor ga daf ni woon dëkk ak imam di ko lor mhm. ba génn àddina mu war laa jullee mhm. bu nee allahu akbar foofa nag moo yàlla doo nga fay wax te xamoo lu muy wax yàlla dëgg la de <laughs> c'est ah. na ni yàlla kii bu accès du mal <laughs> yàlla ku lakk léegi nii ku nay la woon waaw moo tax yooyu alaaj baab dafay am kii kii mu ngi laaj dernière question naan seen imaamu koñ euh, dafa am ñu muy nuyu ak ñu mu dul nuyu ci quartier loolu du xam naa ku ñàkk yitte la rek mi ngi naan notre imam ne salue pas certains loolu du rôle imam. Hmm. xam naa imam bu fuuy la rek <laughs> xam nga am nañu fuuy <laughs> yéen ñi ci ustaas yi am nañu ci fuuy <laughs> romb naa ci ustaas boo xam ne xam nga damaa ŋàppaaral maa ngi ko jib commencé ibbi sama gémmiñ bu rëy bi di ko ree eh, yaa ustaas mais bi mën nee saba va. lu jóge ci man ba tey dellu si loolu moom baaxul pa ay kaay. man xam nga boo ma teree toog ma teree laa tëdd. dëgg la de boobu ba tey maa ngi koy def yu garaaw. mais fu laak fayda rek pap <laughs> yu garaaw laa koy def ci suuf mais fu laak fayda rek. mais kii nee na seen imam bi du nuyu. loolu euh, moom loolu moom alaaji pap jaadu. Mhm. imam daal buñ la ko xasee fal. Mhm. ne la yaay jiite nit ñi. Mhm. ci seen wàllu jaamu yàlla. del maslaa ak ñëpp amal ak ñëpp jàmm. macha allah koo romb nuyu ko. joxal ñëpp yitte. bul dugg ci kër gi bàyyi kër gi rôlu imam alaaji pap ci ci ci quartier mhm. mooy defar mhm. imam bu ñëpp jaaxle ci moom la ñu war a dem mhm. bu tension yëpp yéegee imam mën na ko wàccee mën nga wax ak ñëpp imam rôlu sëriñ la yor parce que imam mooy nekk ak yow waxtu yëpp ci jàkka ji mais léegi da ngay gis jàkka joo xam ni ñii dañuy ànd ci imam bii ñii ànduñu ci ñii naan kii doy na ma ñii naan kii doyu ma mhm. te yooyu bari na ku contre nit ki ne doyu la te tegoo ko ci dara da nga koo contre rek affaire du far ak yooyu parce que jamono Seydi Hadj Malick Seydi Hadj Malick jiite na fajar ba pare mhm. am mag mu yor tamaam di wëgg ci di fëgg ci kër yi di tëgg mhm. di wax ni ku Maodo jiite julli amoo julli en tant que Seydil Hadj Malick Pape di wër ci mbedd yi ku Seydil Xaaji malik jiite amoo julli parce que Maodo matul imam te yàlla Xaaji Malick bi mu ko yëgee dafa bàyyi ba xëy suba mu wut ceeb wut dugub wut suukar dem seeti ko ba këram ni ko maa la teralee lii te di la ñaanal yàlla nag nga ñaanal ma ndax xam naa ni am na lu la yàlla may yow mi xàmmee julli gi yàlla nangul ak bum nanguwul. si di fàggee dem ba mu ci jawaar. Hmm. comme yàlla may na la yow ba nga xàmmee bi yàlla nangu. Hmm. ak bi mu nangoogul mm. loo ñaan xëy na mu nangu ñaanal ma man Maodo ma bokk ci ñi yàlla di nangu seen julli est que kooku de gàccaat na ko rey xam nga lu mu ko wax ah. teguma ko fenn fu dul bañ la ah, mooy li xew léegi Sénégal yenn saa yi nga gis ku la bañ te amul raison gratuitement waaw waaw réew mi nag pap seen problème dëgg dëgg dëgg dëgg leen gën a bañ mm. mooy nit ko am duñ ko supporter amul mm. da ngay bokk ci famille yàlla séddale teraanga ñi ëpp ci famille bi dañ lay damal xef defoo leen daara da nga leen di nuyu ñu lay fayee bakkan ñii contour la ndax li nga am mbaax la nit ñi bëggatul jamono bi ngay dimbali nit ñi ci lañ la gën a bañ wax naa ko benn mbokk barki démb ma ne ko élection yi bu jotee nga yor ay alal di dimbali nit ñi te ñi ngay jox xaalis kenn du la ci votel ma ni ko téyal sa loxo bul dimbaleeti kenn fa la jamono toll di dimbali nit muy wëlbatiku ci li nga koy dimbalee pour damm say tànk téyal sa poos mhm. fa la jamono toll man du ma go du ma bay du ma bo xaw ma naka la ko di waxee di bay golo baabun di dunde mhm. amatul paap golo du bay baabun dunde ku la yéene jàmm nga ànd ak moom ci jàmm mhm. ku la woo ci jàmm nga ànd ak moom ci jàmm ku téye boppam nga téye sa bopp yàlla yor ñépp fii amul ku fi bàyyi nit ngay torox tey ma bàyyi la nga torox tey ma bàyyi la nga alku noonoo yàlla yor ñépp li la yàlla mooy dund ci ku xeebul sa noos muy sa noos. Mhm. loolu mooy àddina bi alaaji Pape mu ngoog jërëjëf yaa oustaz defe naa fi la ñuy jaaree jeexal euh, bëggoon nañoo toogaat ba ca kanam waaye faaw rek ñu bàyyi ak li des ci programme bi permettre leen itam ngeen dem euh, concentré wu ci euh, jumaa bi ñu ngi ndokkeel nag bu baax sëñ samat Samad ki démb rek jot nañu yóbbanteem yàlla na jàmmam yàgg ki doon maamam Cheikhul Khadim waaye miin lool alxuraan mën def ay calcul yoo xamante ni xut bu dëgg koy mën sëñ Abdou Samad Mbacké ñu ngi koy ndokkeel di yaakaar naa ma nga Italie euh, waaw mu ngi doon def tournée tournée européenne bu yàggul jamono bi waaye barki démb bi ma defee jotaayu euh, tamxarit bi man daa Fat Bintou Diop Oustaz pap an euh, ak ñoom Eva Tra am na yóbbante bu ñu jot na kiiwaguñ ko concentré guñ ci waaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax te wóolu ko lool euh, euh, càmmiñal euh, soxna baali Muntaxa borom fondation bi soxna baali itam ñu ngi koy ziar bu baax soxna Momi Kebe moom Serigne Saliou soxna Momi Kebe ab Ablaye Tage nit ku baax itam suñu yaay suñu xarit ñu ngi ko ndokkeel di ko ziar bu baax waaye di ziar itam njabootu imam ratib bu Banjul imam Maska doomam di suma xarit di suma yaay aji roqi maas ca dëkk bu ñu naan Dubaay ñu ngi koy ziar bu baax fàttewuñu itam suma sëriñ euh, Pape Faye euh, ñu ngi koy ndokkeel euh, moom it di ko ziar njabootu ajaratu Henriette Sall yetu yaay maamu maam Bousso ak Mouhamed yaayu Kati Diop moom it ñu ngi koy ziar bu baax fàttewuñu euh, Kamal Silla moom itam suma rakk la en tout cas Kulim Dioum merci ci seen fidélité euh, ci midi plus bi émission bi euh, dina dellu si incha allah lundi bu 11h45 jotee ñu tàggatoo ak mbokk yi yaa Oustaz ak Thiaba Diagne madame le maire Laye Makhtar maa ngi lay ziar bu baax. Alima Kassé depuis Paris fàttewuma la bëgg lool euh, ajatu maam Ndiaye mu euh, mbay Dieye fay yaayu caane euh, Thiané mu abu Gueye sama jigéen sama xarit yaa Oustaz ñu ngi lay gërëm. jërëjëf Alaaji Pape ñu ngi lay gërëm ñu ngi ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. amin amin lépp loo xamante ni bi jub na ci waxtaan wi ñu ngi koy sante yàlla borom bi subhanahu wa taala lu ci dëng it yàlla lañ koy jéggalu. Mm. yàlla nañu ko yàlla jéggal. yàlla dolli ñoo defal jàmm. maa ngi gërëm bu baax sama photographe. Mm. Pof Record. le grand photographe de tous les temps. Paf record Paf record. waaw boo demee mënu ko wax de wax wax ma man sa wax laa gën a paf. pof pof. pof record P O day yàq day yàq araf moom arafu tubaab lay yàq poof record voilà. <laughs> merci El Hadj Pape. <laughs> jërëjëf yaa Oustaz kontaan nañu gërëm Harmonia gërëm Nescafé Lonas Bet 1xBet Safor euh, El Hadj Diouf moo réalisé euh, gërëm tamit équipe digitale bi yaayu Nabu euh, Adja Gueye mu ngi en direct ci TikTok bi alors Hélène Thiam Hélène ñu ngi lay béggee bu baax neex a fekk Angleterre Hélène Deyman fii ci Dakar donc Aïdou Net 12 yow itam ñu ngi lay euh, ziar bu baax merci euh, Ndeye Marie Balla Gaye barki démb xam naa ni kontaan nga ci victoire champion bi euh, jatulay itam noonu la kontaanee ci Dubaï ndax bëgg lool ki xamante ni moo di Balla Gaye 2 on fera nos di d'ici lundi merci bon appétit et bon week-end